tarkal dañoo teete aar bi indi ko ba xam fi nga xam ni foofu la toll xale yi nga xam ne ñoo leen donn ci aar xale yaa ngi fooye aar xale yaa ngi yàq aar ndax gis na ay waykat yoo xam ne ay genre waykat yoo xam ni tarkal la ni ñuy def nii dañ ñu way bu diglewul yeetewul amul ndeysaan nekkatul ay way ay naxaate la mais la lii day énervé dañoo toll ci wàccee stress mais lii day énervé waate quand mais lii day énervé waate eh, quand même ngoom aar xam nga lu ñu ci wax bu ñu nee aar da ngay dégg yaa aar yaa armation. yaa te loolu dafa laaj discipline. yar ak teggin loolu tam wax nañu discipline. waaye aar bu njëkk ba. aar bu njëkk ba ba ñoom kin na la maam Bamba doon def dix ans ci studio pour génne loo xamante ne ni bu génnee qualité lay doon ba ñoom papa Youssou Ndour ba ñoom papa Thione ainsi de suite ainsi de suite. mais aaru léegi ñoom Bouba Demba ñoo fi nekk ñoom Liki Liki Lampaaya <laughs> eh. ñoom Ahmed Soubana ñoom ñoom Doudou Fede. ayca yéen a ngi seen i kër toog donc mën ngeen di woote ba tey di participer ñaari xar la ñu teg tey ba ñetti xar ça dépend ci suñu tàngaayu yaram fu toll. Ah donc enveloppe yaa ngi noonu cinquante cent vingt cinq yéen yéen a ko moom téléspectateurs yi nga xam ni ko xamul na nga koy def nam la def moo tax. Mm. loolu wolof Ndiaye ko wax waaye mm. groupe Futur Média nee na ko mm. eh, ko a ko moom ayca dugg leen 22 22 wala 88 628. 04 05 88 628. 65 65. 88 628. abaa 76 76. 88 628. 72 80. awala ba. nii rek damay tiit sax. Ah. Eh, tey tey tey mais Amdy Diouf merci beaucoup. ay authentique nga maa ngi xaw a rey Aba. Eh, ma waa orchestre <laughs> <laughs> waa waa orchestre national. keroog damay voyager dugg <laughs> jëmbat yow. Eh, eh, eh. suñ chauffeur bi sol chemise bu mel nii. orchestre national yéen i sol si ngoom kaay kaay. est ce que xam nga instant bii nii lii bu doon bu doon dëkku kaana yi fi mu toll nii mm. duñ ma gëmee parce que dama. sol aar laa sol man si ngoom eh na nga ah. génn foofu waaye aar yàqu na. Ah. foofu. Ah. bu dee nga sol ni mooy aar aar yàqu na. si ngoom bongomaan. waaw ñi yor ay kii bongomaan yooyu di yor. léegi ay pël fuute lañ xaw ma ay pël fuute yi mais ay eh, pël fuute yi ma solal de. merci beaucoup ah, Kébé. mooy paa yooyu di ubbi seen tànk yi te naan oh. oh, oh, oh. ñooñu ñëwoon nañ sama ngénte naan joo ni naan paa yooyu. <laughs> naan di di laaj di laaj sànq. <laughs> Ah, waaw Kébé merci beaucoup borom village euh, artisanal yaa ma solal tey bi ku ko ñëw. Batik la Batik ah, ah waa village. village artisanal maa ngi leen di béggee amati moom faaw nga indi ci ñaar nga sol benn ma sol benn. a ah dafa nga yii. tubaab yi ñëw ak américains yi di ko jël di ko yóbbu mm-hmm, mm-hmm. waaw waaw te ñun ñu war koo sol et puis et puis dëkk ci di sol lu rafet bàyyi leen ñu parfois waaw non non non mais li dafa rafet li dafa rafet mais saw wax bi nga taam <laughs> wax bi moom waaw bale wax bee bale ok ok ñoom Pape Moussa ak ñoom Babacar ah d'accord bu sa wax bi ah d'accord daa bale wee bu dee am na ku ne ci bi salaamaaleykum allo ñetti xar ci sama loxo ça dépend suñu yaram bu tàngee enveloppe yëpp ci loxo Singom sa dépend bu yaramam tàngee. Singom muy ko dañ lay may xar may la lay accompagner sa xar. Eh eh, ay saagu eh, oignon ay saagu pomme de terre yu. ay vingt cinq kilos. ay diw. GFM mën na lu ne. ay diw. eh mais am na ay bon bon yu may. tissu Minata création. Minata création day ñëw yàlla boutique may say frère. tissu mbokk mi la ni lan. kookan la. Ah. allo ma dosé ko tuuti. allo. tey moom mënoo dosé kenn. da ngaa waa da ngaa fecc bale waa ah, may ma ma. déglul mënoo dosé salaamaaleykum. na kii coupé yaa ngi si jàmm. ça va noo tudd. noo tudd. allo. allo noo tudd. Kumba. foo dëkk. Ziguinchor. noos ah yow fi nga dëkk dafa sori wàccal ci suuf may naa la juróomi junni du ma la téye ci antenne bi lu yàgg. Mm. fi nga dëkk dafa sori. xam naa ni maam Gaye ak chef d'union ah Fall tey ma may lii rek. may naa la juróomi junni tey kenn <laughs> moom donc Abbas ma nga ca Gambia maa ngi lay kontaane bu baax. Seri Thelel ak Fatou Abbas kenn du yow yal na sa jàmm yàgg. ñaari xar la ñu dig. Abbas yal na jàmmam yàgg mais yow ah, xaw ma ndax nga beewal ah, ah, ak Abbas ok mais si nga mais non non boole man ak am problème. Abdoulaye Doumbouya le jeune transitaire. directement boole ak yow. waaw ah, <laughs> maa ngi lay bàyyi. ma laa la wax. ay ceeb <laughs> bu fekkee am na kenn ku ne ci ligne bi mën nañ ko jël si nga dafa am benn xale boo xam ni. Mhm. ma nga ca Amérique. il jeune xam naa ni sa âge lay am wala yaa koy war a mag. eh man. waay ma nii rek man daw responsabilité. waaw may xale xale lu mais 67 laa de. mais artiste la kii mais su naan la boo xam ni. Mm. mu ngi yéem américain yi. Mm. waa mais moom dafay moom dafay wane fiertéem ci doomu sénégalais gi mu nekk doomu sénégalais maa ngi lay wax lu garaaw. maa ngi lay wan lu garaaw. teklu moom lañ koy wax foofu ci Amérique teklu. Mm. yaay ji. sénégalaise la. ndeysaan papa ji sénégalais la mu ngi ci armée ba moom. Ah. moom booy bi mais. mu ngi yëngal Amérique guddi ñu toll la mu ngi yëngal Amérique guddi ñu toll lan la woykat la woykat la ah. boo di ko wax ay école ak yooyu mu ne leen bu leen ma woy ñu ngi ne mm. Wally Seck la mm-hmm. bu nu jaxase ak dib exemple booy bi ah. jaxase kook école laal ci tuuti Youssou eh, Ndour am na Njaga Mbay boo ci booy loolu yëpp ci biir booy bi mu ngi fees ci biir day tuuru ah. lii ëpp na loxo lii ëpp na maa ngi ci ñëw léegi am na ku ne ci ligne bi salaamaaleykum man mosuma gis booy bu mën a wayee nii merci beaucoup lunateur Kër Rasoul LKR papa eh, kooka la papa Mané. merci maa ngi lay nuyu kooka la Ndiol ñoom Adama ak ñëpp maa ngi lay nuyu salaamaaleykum. allo. allo oui Abba. oui. loo nekk. yaa ngi ci jàmm ndax. ça maa ngi ci jàmm bu baax. noo tudd. ah man fooy wootee. gàddaay. problème mu lan a tax nga woote. Eh, Abba benn amaguma xar. yow mii. billaahi sëñ bi dafa feebaroon barki démb la génn hôpital. léegi ndeysaan léegi fi nga nekk noonu am na solo lool mais. Ah? man mi waaw ma dama damaa foo. waaw moo tax ma taxaw fii naan damay maye xar man mi amaguma. Mm-hmm. ah ak man waaw waaw léegi. waaw. ñetti xar laa am. waaw. mais sentir guma sama yaram tàngagul tàng gu may maye xar. Mm-hmm. waaw. léegi bàyyi ma jox la juróomi junni. Mm-hmm. ay eh, abba ah, maa ngi ñëw boo ma dégloo je développe. waaw waaw ay boo téye juróomi junni yi. Hmm. waaw bu la neexee yow nga coupé bul dugaat. Hmm. ay bu mu nekk télé. jox sa rakk wala sa mag wala keneen mu dugaat. Hmm. waaw su ma ko jëlee sama yaram bu tàngee mën naa ko may xar. waay bu waaye forcé waay waay yow dimbali ma rek bu ma forcé. informel sa famille. merci informel wooteel. woote wool sa sëriñ nga ne ko mu ñaanal la. ndeysaan ndeysaan si ngoom. Hmm. kii moo waxul ak yow man doon waxal. mais man damay participer fekkee ma ci boole. ok fekkee cër la. ok léeg nangul nit ki lim moom lii doom laa am nga wax rek ma sànni. ok léegi ah si ngoom maa ngi woon ci benn booy boo xam dañ ko mixé. Hmm. waali lañ ci def. Hmm. am na tuuti Papa Diouf. am na dip ñam na ci ngaaka beneen di tuuti. chinois ñu ngi leen di sant di leen gërëm parce que mixeur yu bees yi nu yi nu génnee. di ci mixé artistes yi nga xamante ne wax dëgg yàlla da am benn talent waxuma la dañ koy mixé mixé wuñu artiste bi de nit dina way. Ah, nga ciy gis nit dina way yow nga ciy gis naan kii dafa nduróog Njaga Mbay wala dafay day way comme coon booy bi laa la wax. du facette yu bari quoi. dafa am talent ba buy way da nga ci sentir ay kon jër ci ay. nili bu njëkk ba dafa am nili yaa loo viiw da ngay gis booy bi ci ñoon teglu. Ah, moom bu eh, eh, demoon ba matière eh, jaaxal waxal waxal waxal mais bu ma lalaat waxal rek wa sunu waa kër. waaw waxal rek waaw waxal waaw waxal rek maa ngi déglu. dañ exigeant. su ngoom yow di nga yow sa maam ak seen waa kër dinañ la seetaan booy nekk. ci télé dañ may seetaan maa ngi lay nuyu bu baax baax a baax waaye Tata Marie Hélène maa ngi lay siyaar bu baax a baax. yaa ngi woon ci teglu yaa ngi woon ci teglu. teglu waaw ñoo bokkoon classe. ban déglu ngay ngay ngay bu dee am na ku ne ci bi nañ ma ko jox waa SSP maa ngi kontaan ci ñoom ñoo bari jom ah, euh, xale yi nañ SSP yëpp ñoom Charles Lebon ñoom Boni ñoom Adama ah, ñoom ñëpp ñoom abu maa ngi leen di kontaanee bu baax euh, bu dee am na ku ne ci ligne bi nañ ma ko jox si ngoom. Hmm. si ngoom de du changé euh, salaamaaleykum. maaleykum salaam. yéen ngi ci jàmm ndax. allo allo. waaw maa ngi lay yaa ngi noos. waa maa ngi sant yàlla bu baax. <laughs> Singom maa ngi ci Facebook bi. kii Mbaye Diop la tudd. nee na Singom comme subu kànja li mu sonné <laughs> comme ça. <laughs> Mbaye maa ngi lay déggee waa asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. yéen a ngi am jàmm. waa sant yàlla bu baax Aba. noo tudd. maa ngi tudd Mariama. fooy wootee. Tiwaawan laay wootee. Tiwaawan. waa. yaa kana bokk koñ. man. man maa ngi dëkk Daaru Salaam. Daaru Salaam. foofu am na ku siiw am na ku siiw kenn ku ku fa dëkk. waaw. ku siiw ku dëkk fii. waaw. ah non kon waruma ko miin ne ndax man lu may ji lu bariwul moo tax. kon duma la may kon duma la may. ah abaa ah, te nga ah déedéet man damay def pour nit ñi di ko gis. Hmm. su ma la mayee kan moo koy way wala mu wax ko ba nit ñi xam ko. may gu ànd ak wane wu la may gu ànd ak ngistal. waaw léegi man bàyyi naa lépp sa loxo ma maye nga nga waneel ma ko defal ma xam man dama lay bëggee moo tax. ah loolu mën naa nekk ndax ñu ngi feeñ ci TFM la télévision leader. Mm-hmm. ñu ngi ci Facebook bi mm-hmm. suñu page Facebook. Mm-hmm. ah ci biir boor mën na ca bee boor man man sa sa sa fan laa. wàccal ci suuf wàccal ci suuf. ndeysaan may naa la juróomi junni. waaw déggal na mu ko maye aveuglement. <laughs> oh a réel. <laughs> waaw yow tubaarkàlla hmm. waaw am ko mën ko di ko bokk waaw waaw yàlla rek mën lii waaw waay aba yàlla na sa yàlla rek mën lii Paco Dieng l'italiano mbokkum yaayum Leena Gueye ak Ndiisu maa ngi lay siyaar di la kontaan nañ jël suñu premier invité ndax temps bi fi ñu toll nii mën naa jékki-jékki rek mu jeex yëf yi neex te tey amuñu temps bu doy donc nañ ko woo xale bi euh, bokk na ci xale yi nga xam ni njëkk nañ leen a seetlu hmm. wala bàyyi leen xel ci TikTok bi hmm. euh, xale bi euh, yëngal na TikTok bi et puis hmm. téye na ko ci loxoom et puis artiste la quand même artiste la ndaanaan la et puis réew mi bëgg ko mais bu ñu nee réew mi ne Sénégal 16 millions lañu bëgg. dañ naan treize millions yi. c'est des femmes. Mm-hmm. kon moom treize millions yëpp ko bëgg. Mm-hmm. jigéen ñi ay xaritam lañ dañ koo bëgg lool lool lool ma bàyyi la nga présenter sa ah, invité. il s'appelle Tafi le musicien Tafi dama lay bàyyi nga daagu ndànk doxal nu la neex waneel sa cas dosel jaagar jaagaril defal lu la saf waneel ne gentleman nga nga ñëw fii ñu waxtaanee lépp. ayca ayca Tafi ayca. jom <laughs> eh, Tafi. Eh, Tafi. <laughs> ci loo ne mbaa ngi dox. xam avant ñuy commencer dañuy may. wala. ñun ñun duñ dem ñun fii la yem. boo ñëwatee de laajte wala bopp bi dafa ñun duñ dem ñun duñ dem ñun fii la. Eh, <laughs> te mais mais bro ñu ngi lay bëgg am na ku waxaat léegi ne yaa ngi niroog ci diwtiir euh, donc ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax. maa ngi lay doole maa ngi lay xam nga delloo ziar waaw mais maa ngi lay ziar. maa ngi ziar xam nga Shingo maa ngi ziar waa euh, waa TFM ak képp kuy seetaan Tafel musicien sa kii oto yi ñaari chemise. booy ñëwati. da ngay la ok ok euh, invité bi dañ koy bàyyi mu nuyoo. Mhm. bu jaaraat ci kanamu invité bi. del wane li ngay sol ñu wax la suñu xalaat. ñun am nañ xalaat de <laughs> ko wane. ay ay euh, tafi ñu bàyyi la ñu bàyyi la nga wu. waaw mais Abba maa lay euh, maa ngi lay maa ngi lay xama jaajëfal di la siyaar bu baax. di mhm. siyaar Shingom. Mhm. maa ngi bëggee waa TFM. Mhm. di nuyu sama xama soppe ak képp kuy bëggee Tafy le musicien. Mhm. merci beaucoup. mais ñu ngi bëgg ci yow mais euh, kañ da nga waaye nga njëkkee euh, wala ci euh, réseaux sociaux yi fa nga commencé. Mhm. non mais way laa way laa xam a njëkkee quoi. way nga njëkkee waaw. parce que way laa njëkk def balaa may dugg TikTok di def ay vidéo parce que way dama ko yàgg bëgg. waaw peut-être TikTok benn vidéo laa def rek. mu dem gars yi bëgg ko après moo tax ma nekk ci TikTok bi. mais loolu indi na ay coow ah. TikTok bi. nee na moo lancé euh, ñu ne non euh, man dama dégg. ñu ne Tafi nee na moo lancé TikTok. moom mu ne bokk na ci ñu ñu seetlu ci TikTok te bu waxee loolu. Mm. donc moom je pense que dina ko nangul. parce mm. que njëkk nañ ko seetlu man nag ci kay laa xamee luy TikTok. Euh, waa ji ki ne mbuur te naan. ma lu tax nga reew lu tax reew waaw waaw man kooku laa ko xamee. Mm. mais quand bi ñu fa ñëwee fekk nañ la fa nga fës fa loolu. nit ñi. bëgg la fa loolu looy wax yow yaa ko créé wala yaa ko indi wala euh, yow moom fan ngeen ànde euh, TikTok man comme li ma waxoon DJ Kheucha rek. Mm-hmm. Euh, mënuma lancer TikTok ah mon frère DJ Kheucha mënuma la waaw maa ngi koy nuyu xam nga de passage. Mm-hmm. mënuma lancer TikTok. mënuma créer TikTok mënuma may buzz TikTok mais li ma wax c'est très clair dama nekk TikTok. Mm-hmm. tax naa ñu bëri télécharger ko. parce que même bu dul dara même bu dee 5000 personnes ñu ngi mooy follow foofu te ma leen di mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. donc man foofu laay waxee mais man mënuma lancer TikTok may ma ko buzz waaye am nga fa quand même ma fay xama follow gars yi la fay follow di la fa bëggee mais gars yi dañ la fay sànni xeer noo dund ak ñoom loolu dañ may saaga <laughs> dañ may saaga di ma tagalu tar mais bon showbiz bi est-ce que mos nga cee jot commentaire boo xam ne leer na la ne lii bon euh, commentaire bu ñaaw la mais dëgg la quoi commentaire bu ñaaw la mais dëgg la comment. non comme boo commentaire bu boo xamante ne nii leer na la ne lii naaysul mais xam nga ne yow dëgg la. non man li may def c'est très simple. Mhm. Mhm. damay dem boutique jënd yére. Mhm. sañse Hmm. teg sama sound teg sama Wally Seck wala bas. tooñoo kenn. Hmm. tooñ bu dee loolu ngay def tooñoo kenn. fecc waaw dugal ko xale yi bëgg ko. bu dee loolu ngay def tooñoo kenn. Hmm. peut bu buñ ma xam a critiquer sama tatouage sama bën nopp. c'est ma vie. waaw na ñuy def maa ngi dégg xale yi ñu naan da ngaa def sa yaram comme ardoise ak yooyu mais yooyu euh, yooyu bu ci tontu. yooyu moom sa vie la yaa moom sa yaram. Ah, def ci artiste la sax. waaw mais mais mais kaay ci art bi euh, donc kañ nga commencé way ak lan moo la indi ci way man. waaye dama ko yàgg bëgg quoi man Youssou Ndour c'est mon ñu dol man je l'aime bien moom laa njëkk defal single def ko clip jàkkaarloo Boubs Weekend Star macha allah donc way dama ko dama ko xam a tarbi quoi mhm. demaguñu fenn nag mais ñu ngi si yoon quoi di ñaan yàlla rek yàlla teg ñu loxo ndeyjoor ba fi ñu bëgg yegg rek ñu yegg fa yàlla na yàlla moo tali amiin sa sensibilité euh, sa yaay sa relation ak moom parce que moom mooy sama jabar mooy sama mm, gerte. mooy sama lépp mm, parce que ba muy metti moom laa gis. seen complicité kenn mu mm. sensible ci yow loolu bu ñu ko waxee rek. mais nag jaar naa ak moom fu tar. balaa mu may bàyyi showbiz. amul lu ma deful mais dafa dem ba ci bi xam ni bëgg-bëgg mi ngi fi. Mm-hmm. donc mu ñaanal ma rek mu ne demal. mais nag na nga muñu am. mais moom mais moom mu ci aar bi. animatrice animatrice la waaye. macha allah kon kii lii ndono la ci moom sama ah? papa la. Eh! yow Saint-Louisien nga. waaw Saly yow ci micro nga judd kon. waaw kon yow ci micro nga kon yow boo waxee da ngaa war a wax booy. waaw waaw boo wooyee da ngaa war a way. moom suñu ñoom samay papa lañ. moom moom ak sama ñoom papa ñoo doon ànd. ooyee ah, ak ñoom Sidaat Kolos donc. ooyee kan ñoom ñoom Sidaat ak ñoom di jébub. waaye Kolos ak sa papa ñoo doon ànd. ñoo doon ànd kon suñu papa lañ kon kon kon ñoom suñuy papa lañ. kon waaw waaw waaw léegi tafi fii ak ay at ci kanam. Hmm. mën nañ wax trois ans cinq ans ba dix ans hmm. ça dépend ci ñun bon fan lañ mën a gis Tafi fan lañ la mun a xaar. man comme li may faral di wax nit ñi rek je comme les Davido man dama bëgg mel ni comme Davido ak doon ànd. Kolos ak Kolos ah, sa papa Boubs ak sa papa. waaw ñu ànd. ayca ayca ah del baa di insister waay def non non non damay ah. mhm. da nga bëgg mel comme ñoom ay Wizkid ñoom. sama vision foofu laa ko teg tey mel ni comme Wizkid wala Davido parce que mm. tey. gëm-gëm moo lay yeggee moo lay ay eh, kon mu ngi nii Sénégal. Mm. mais mi ngi toj Amérique. waaw mm-hmm. bi gëm-gëm la ko ak ñaanu waajur. waaw ak sa xol nice. waaw loolu moom boo ko amee rek. foo buntu boo fëgg rek. mën doon choisir ci wéy bi. wala nekk ci réseaux sociaux yi di bëggal nit ñi ci TikTok bi. Mm-hmm. bon lan nga ciy choisir. lépp man woy bi. mooy sama job. Mm-hmm. mais en dehors way damay simbi sama yére mel ni man maay tafi bëggal nit ñi. fecc bi. bëggal mhm. gars yi loolu en dehors sama musique. Mhm. et ñoom ñaar ñëpp kenn mënul dem bàyyi sama. fecc ak lépp c' est la même chose quoi mhm. c' la même chose moo tax ma boole lépp def ko benn. mais ban problème nga am ak euh, sa way ah ban problème nga am ak sa musique ba nu gën la xàmmee ci en tant que tiktoker ka kuy way. comme genre euh, man. peut-être que xam vidéo tiktok yi moom laa gën a jox. xamoo. ok ah, ah, ah, mhm. ok parce que xam nga récemment rek laa génnee mooy sama deuxième clip mooy démarré def ko clip mu xam YouTube bi mais lép benn la rek parce que buntu bul xam fan la mhm, indee ko mhm. donc ma damay tuut fii

ci yaayam noonu man mm. damay am benn sentiment bi ci yow parce que ñun amuñu lu ëpp suñu yaay yi bu ñu fi toogoon ku ci nekk di wax fi nga aw ak sa yaay mm. wala fi nga jaar moom di nga mm. jooy ñeneen dee seetaan jooy yaay bi dañ ko war a continuer yaay yaay mooy àdduna non moom moo tax may fighting moo tax lu ma waay waxal rek garaawul quoi damay dama dama dama ko léegi ñi bëgg seen yaay ñëpp lan nga leen mën a may ci acapella rek ah, yaay booy da nga yàgg sonn ci man. nga am na fu ma di ma téete ba may gone ma nekk sa biir di la sonal may lukki lukki waaye ngay souffrir doone law juróom ñeenti weer yi jot na ay ma moomoon lii mama mama ñu yóbbu la hôpital léegi <laughs> boobu yàlla ji ñëw na ndeysaan o oh, yaay booyo jégal ba boo fi continuer woon sax mën ngaa def lii ndax mi dama bëgg sama yaay ba aw ma ci moom ah, lii laa doon arraché benn feuille par benn feuille di la ko jox <laughs> ñu naan ma non arrête ma naan leen non non ah, mais weesuwul weesuwul abaa naan ma singom kiyeeti ma naan ko mayekat Ah weesuwul nag jox ma benn rek ba tee ay ci am na solo donc eh, mën nañ la xaar ci ay live mën nañ la xaar ci ay duo am na yenn waykat yoo xam ne am na ay projet ànd ak ñoom waaye parce que maa ngi préparé sama xam anniversaire te incha allah soirée live ne yaa ngi ci ah, ah, loolu suñu yëf la donc tey jii ñi lay xool bëgg la di topp di la xool di la seetaan fan nga leen di woo ci TikTok Instagram euh, bu ñu ñëwee kan la ñu seet Instagram TikTok hmm, mais man sama Instagram man man xaw ma man teel ma koy bi a. a a focus fekk nga euh, foofu lañ lay fekk nga ànd ak ñoom fële. ànd ak ñoom fan. Instagram. Instagram comme comme maanaam dafa page j'ai bien mm. am naa page Instagram bi nga ëpp doole. waaye mm. TikTok fa la ëpp doole TikTok nga leen di woo. waaye bu ñu fa ñëwee. nga ànd ak ñoom Instagram. donc sa page TikTok lan la ñuy euh, lan lan la ñuy seet. bu ñu Tafi le musicien. Tafi le musicien. Taf te. TAPHDI. ok et puis il a plus de 1 million 600 j'aime sur TikTok. macha allah ok ok ok mu dafa mel ni. presque 200 000 abonnés ah daa mel ni ñu ngi koy wan ci écran bi nu ko xool bu dee am na ko nekk ko ñëpp dem toppi ñu mën ko dem mën ko xool egseegul de dafa mel ni egseegul de bu egsee rek ah ah su egsee rek waa kay waa kay waa kay ba ngi noonu donc mën nañu ko xool foofu ay ayca. maa bëgg fo. Tigil mo man dugo. Damay fa. Ay tala, ay tala ni yàlla. maa bëgg fa. Tigil mo man dugo. ay ci mu ngi noonu donc am na solo nga continuer sa choix de vivre mm-hmm. ah, parce que ku ci nekk ci ñun sañ nga bégal sa bopp mm-hmm. ku ci nekk ci ñun ah, sañ nga def lu la neex bu ñu la waxoon tey tamit sa mot de la fin ani looy wax maa ngi remercier euh, Chingom ak ah, maa ngi yow yow Baye lay bëggee parce que xam nga xam nga bu leen neexoon du ngeen m'invité parce que dama leen di seetaan damay suivre ah, ah, émission bi dama koy xam flow dama koy suivre mi ngi doon lu nice yal na leen yàlla defal jàmm di nuyu sama sama xam a mm. mooy sama jabar mooy sama yaay quoi moom sama lépp. moom xam nga dama ko bëgg. di ko wax ni que na gën a dolli ñaan ya. maman dundal wéral naa ko trop franchement di nuyu sama soppe ya mm-hmm. di xam nga di wax gars yi tamit ñu mën a sóoraale corona parce que am na mi ngi si mi ngi si temps bi ñuy takk suñuy masque incha allah très important xam xam xam respecté mesure pour def émission la nii rek moo tax non je comprends je comprends non a ñaax rek xam nga di leen wax ni mi ngi ñëw incha allah bientôt dina dinaa leen indi lu bees. yu bëri doole na ko doole. macha allah macha allah am na solo tamit ñu ngi lay béggee bu baax a baax a baax. donc am nañ beneen invité boo xam ni war nañ ko am moom tamit léegi mu ñëw donc c' est ça. Euh, mm. cette émission c' pour la jeunesse donc képp kuy jeune. Mm. di yëngu ci li nga xam ne moom mooy aar di nga ci ñëw ñi nekk ci réseaux sociaux yi dañu ci ñëw bu baax a baax a baax donc c' fait pour vous yéen ko moom lu mu gën a yaatoo rek mu gën ci ñun gars yi nag ñu ngi réagir. Mm. ci Facebook baax a a baax si ngoom bu dee am tey. allo. allo oui. salaamaaleykum Abba Aïcha Ngom. soxna si na def. man Abi Soumaré Abi Soumaré. yow la. Abi Soumaré Abibatu Soumaré. Abibatu Soumaré ñu ngi lay. waaw siyaar di la kontaanee di la jox sa wàccuwaay. day ma neex trop yéen émission dafa neex trop si man damay si moom mii. di laay ah, day reetaan en tout mm. cas sa fait plaisir et merci du ah. fond du cœur. ah maa ngi bëgg émission bi nag. ndeysaan ndeysaan émission bi pour yow la. Mhm. Ah. mbaa yaa ngi waaj tabaski bi mbala pare nga. mais amaguma dara dara même sol bi amaguma ko. ah ah, ah GFM moom GFM moom daa yombal la jafe woon. daa xool ñi nga xamante ne. seen ah. tabaski daa nar a miti mu nar koo neexal. fan nga dëkkee. Sicap Liberté 1. fan nga dëkkee. Sicap Liberté 1. Sicap Liberté 1. waaw. yow comme que mhm. comme que mhm. sori woo. dama lay may juróomi junni. bu ma la mayee juróomi junni mais bu ci yam. waaw continuer di woote yow waaye informel sa waa kër boo amee ay xarit informé leen. d'accord mën ngaa gañ a xar sa waa kër mën na noo gañ a xar. d'accord ci barke GFM. may naa la juróomi junni wàccal ci suuf. ay ci am na solo ñoo la gën a bekk ñun tamit kontaan nañ ci yow Aba euh, Cheikh. Bintu Talla day laaj Aba xanaa Facebook bi bokkul ci may yi nga xam ni moom la TFM di may wax na dëgg ah c'est pour les téléspectateurs auditeurs mais internet yi tamit ñoom ci la ñu bokk donc li may laaj ci Facebook bi parce que mënoo émission ci Facebook bi parce que ñoom mënuñoo woote. Mhm. li nga mën rek mooy laajte. Mhm. Facebook ñu wax ma Youssou Ndour son bi mu njëkk a génne ci carrière am. Mhm. ban année la ko way ak moo kan ñoo ci ànd ak ku doon tëgg. Euh, euh, euh, tama bi ak ban studio la ko recordé compliqué rek si noo fexe ba mu gën a compliqué waaw ban studio la ko enregistré fan ko ak son bi njëkk génn ci carrière Youssou Ndour ban jour la dugg YouTube ban année ñaata vue am ci YouTube bi hmm. Youssou Ndour lan moo ko inspiré ba mu woy son boobu waaw loolu lu mu gën a compliqué rek incha allah ko xam lu mu gën a compliqué rek incha allahu rabbi waaw la neexee mën nga wax sa beneen invité ba mu koy bind waaw nan la ko waaw jëlal sa beneen invité temps bi dafa. ay ca sunu beneen invité bii duma ko woowee Thiass waaye dama ko naan cas te ku ne loo xamante ne dafa neex danga ko naan cas ci digg bi danga koy coppati ba muy moom damay xëcc mel ni kuy xëcc mbaal naan ni naan ni naan ni Thiass ngay ñëw ma xëcc cas ngay ñëw ma lay xëcc Thiass ngay ñëw ma loo sol lu ñaaw lu ne am nga ko talent woyal ñoom ay woy jël ñoom fari ole ah cas nga lan fari ole ay fari ole fari ole naa ko daan jël lii la woy lii la woya ah, mën naa ñëw cas woyal naa la naa ko daan jël waaw waaw FM. eh loolu duñ ko woy ku ñaaw waaye duñ woy baadoola duñ woy koo xamante ne dafa nar a torox Thiass wëyal. Thiass mën naa ñëw. Euh, amul benn problème ñëwal <laughs> parce que woy moo diis. waaw par yoon dafa diis. yow li nga solo diis de. Thiass kon li ma solo. yow euh, euh, kii Thiass en tant que artiste. oui Thiass est-ce que di nga enquête laajte xam nga kan la ñu jox aar bi aar bi ku aar bi kan lañ ko dénk ku gérer aar ah. man kuy man kan mooy kilifa art bu weesoo ministre de la culture kan moo gérer art bi war a organiser bi waa Sénéra waa ñoom ñëpp ñoom fan la nekk. waa Jamra. waa Jamra non non waa Jamra ne nekk ñu ci art de. nekk yow waa Jamra ku ku ku. ku yàq suñu ku waaw ku yàq culture bi quoi yooyu la nekk. parce que euh, ministre bi ko jox kooku maa ngi dégganteeg moom. kooku mu ngi liggéey ci lu am solo ci aar bi parce que dafa bëgg gars yi li ñu téye woon aar bi parce que la ci seen ñoo commencé dagg mais ñu ngi ciy dox ay jéego parce que aar bi avant boo gisee dafa kow a désordre xam nga camion bu yàpp dafa dafa xaw a désordre yow eh, eh, eh, xam nga loolu xam nga aar bi dafa nekkoon ci yoon bu normal mhm. mais actuellement boo xoolee dafa désordre mënu euh, booy dafa désordre parce que boo xoolee li li gars di def léegi dafa am ñu ngi koy defee ci norme xam nga dafa am loo xamante ne norme la ak organisé ak organisation. alors alors léegi nag loolu boo ko xoolee dafa am. ci point à la ligne ah point à la ligne merci merci merci booy. papa ngi lay nuyu. oui papa Yëmbal maa ngi lay siyaar di la jox sa wàccuwaay di kontaan ci Aba vraiment sama waaye la. ak Aïssatou Dine ak Aïssatou Dine fa nga nekkoon fu neex la. Euh, parce que aar dafa am loo xamante ni loolu la ñuy tuddee la divise la division que rémial loolu. mooy tax li nga xamante ni moom la nit ñi di jël parce que Anaxion a réglé la partie des Euronisie euh, euh, Euronisie bi nga xamante ni mooy mooy sociopulaire bi. ndax di nga jékki-jékki di tiit ay kilifa lay seetaan de. yaa ngi wax sax. dama de voilà foofu voilà comme. Euh, voilà Iba ak kii. <laughs> non non non eh, non eh, Thiès bu la xaar sama tur de. non dama bëgg waaw ah, dimbali ma rek bu la sama tur. non non rek non waxal xoola da ñëw bi nga taxawee di nga ñaar naa nga bañ maa may. waxal sa wax si nga ma la invité man wax dëgg ah, rek. non non bëgg nga may dimbali ma fi muy waxee ñu ne ci Facebook bi. Euh, reconnaître nañ ñi tarkal réew mi bu ñu dee xool ñaar wala ñett ñi fi ëpp dañ la ci boole kenn du la ci génne donc loolu ko reconnaître mais tamit dañoo reconnaître sa réewande donc aar est-ce que dafa ànd ak réew non aar boobu boo déggee ñu ni discipline hmm. léegi aar bi nga xamante ni mooy indi euh, tiis mais léegi aar bi nga xam nga avant ni mu demee dafa desoon eh, yow li ma lay laaj yaa ngi li nga may tontu. <laughs> waaw yow Thiès man. non pourtant Thiès laa la laaj yaa ngi naan ma ay ah eh, oh, eh, mais Thiès la. non faaw ma saale la parce que. dama miin li ma lay ko xam. mille dama ko miin da ngaa yàgg ci aar. pour téléspectateurs yi avant show day commencé waat chaque 15 jours donc dañ ko plateau boo xam ne dañuy invité personnes mais da takk masque. da ngay booy ñëw donc invitation sur invitation. chaque 15 jours personnes tous les dimanches donc 15 jours dimanche bi 15 jours beneen dimanche bi ah, ay Dakar na door plus day commencé waat weekend start day commencé waat ngeen xam loolu moom ah. mën naa ko waat loolu euh, la euh, man loolu man boo invité wul da ngay gis ma parce que man noonu la mel hmm. boo invité damay ñëw kenn du ma téye te première avance o gars yi première avance maa ngi nii euh, ne ñëpp kar man maa ko njëkk a def gis nga si ngam li nga ma laaj dafa nekk point bu ma neex parce que boo nee ma kañ nga dugg ci aar parce que man en 1613 yow yow yow kii bàyyi ko mu ah, si yaa ko laaj bàyyi ko mu yeggali léegi kenn du la donc sa digganteeg sa bàmmeel lañ lay bàyyeel non abaabul dugg loolu non abaabul dugg sama digganteeg bàmmeel ah, parce que bàmmeel non non non am ba soo gis bàmmeel bu am lamp non non nañ waxtaan nii la ah, parce que man maa man ñoo ñoo far amul bu leen ma dugal ci ay bàmmeel vraiment léegi xoolal li ma laaj noonu nga ne la ne si affaire ah mais yow tamit tiital nga ma trop avant yow yàq affaire bu yàq quoi. s'il te plaît est-ce que mën nga def euh, eh, eh, ci kontaan parce que. Euh. xaaral ma tam ma sañse di saaf. ku la habillé. kii is borom teranga prestige. moo moo la abiyee lii moo ma abiyee lu fees. maa ngi ko ciy jaajëfal is li ma sañse nee na ma bu ma paree ma jaaraat fa modd bi na ko gaa yi jël parce que tabaski bi day xat lii voilà. ok Thiass euh, bi seetu na ko ñëpp xoolaale pour que bu la commande la quoi. waaw a ok Thiass euh, la laaj kañ nga nekk ci aar. parce que yooyu yëpp yow nit ñi xam nañ la mais lan moo indi ci aar. Euh, voilà Aba tamit loolu point boobu tamit neex na ma parce que aar boo gisee li ma ci andi ak li tax ma dugg ci. Euh, dafa am loo xamante ni nii maa ngi ciy jaajëfalaale kooku di Guèye Teranga. Mm-hmm. maa ngi ko ciy jaajëfal borom Thiès. Mm-hmm. parce que euh, aba yenn saa yi ngay gis nit di def benn affaire boo xamante ni dalay leer danga nga ko mën mais doo am capacité wala gëm-gëm pour def ko. Mm-hmm. mais boo boo boo boo dëgërloo baa nga am gëm-gëm. parce que yenn saa yi sax nit di la expliquer histoire am ni la boo amee gëm-gëm wala fit bu dëgër pour nga mën a gëm li ma lay la man noonu laa ñoogale pour xool gis euh, stratégie bi bi ñuy teg pour harmonie gars yi mën di seetaan ak di doxal li nga xamante ni moo di aar parce que aar. dafa am li tubaab naan comme corporisation loo léegi eh. il faut nga am lobby boo xamante ni dalay jaral nga def fanis <laughs> à dégéris bi nga xamante ni day coox maanaam xam nga souvent da nga gis bu ñu nee la météo commencé na jant bi la solaire lañ lay wax <laughs> non. la solaire voilà la voilà voilà moom lañ naan la la solaire. Mm-hmm. léegi comme la solaire comme mm-hmm. art dafa mel ni que la solaire léegi loolu dafa am euh, loolu mooy pàcc économique. économique boobu da ngay doxal sa bopp pour mën a am harmonie. Mm-hmm. doxal ses parties au parce que da ngay gis li nga xam te <laughs> moo di moo di très euh, très loolu loolu dama ko dama ko bëgg. waaw trémixilage boobu dafay tax nit ki am javance waaw li ñu naan javance à normalité. Mm-hmm. loolu boo ko toppee da ngay am résonance à partidise mm. euh, pour la comporalisation bi nga xamante ne mooy ñogal aar loolu. Ah. loolu tamit da mooy damay gis gars yi di ko di ko di ko euh, bàyyi ci suuf waaw di ko jaawale. Mm. Mm. te loolu dafa dafa am solo. Mm-hmm. parce que analogie bi euh, bi bi ñogal aar. Mm-hmm. parce que boo gisee ñu ne aar quatre fils la. waaw moom la guitariste yi di yor. waaw muy yan ak yan yan. cite-nous les quatre films. la voilà léegi dafa am bi ñuy kepp boobu moo tudd Zanis. <laughs> Zanis waa Zanis A. les Lanis. waaw xam nga Zanis ak Lanis moom beneen bi anawet la tudd. mooy les anonymes les anonymes loolu mooy tax nit ki am anawet. anoet boobu dafay tax nga nga am euh, aroné boobu aroné boobu nag dafa lay aroné nga euh, aar Thiass comprendre nañ li ngay wax nii yëpp yow li ngay wax nii parce que ku la dégg xam ne da nga maîtriser aar waaw dama ko xam nga aar da nga yàgg ci aar man lan moo indi ci aar bu gàtt laa laaj moom développeur Thiass lan moo la indi ci aar donc mën nga ma ko wax mais Thiass euh, kan kan nga seetaan ba xool ko ba tax nga bëgg aar ngir yàlla nga tontu ci li ma laaj rek ñu avancé voilà loolu nag dama ciy kontaan tey moom dama lay tontu directement bañ laa indil explication boo xam te ne dafa lay énervé parce que man bu may suivre am mbégte ak contentement. parce kan nga suivre ci art ba bëgg art. si ngoom noonu la demee maanaam. Euh, ah, d'accord xam nga souvent télé yi dafay tax ngay mën di xool. pour pour nga am amour comme déjà ni toog ci télé ni abaa dafa ma neex noonu ngay toogee yow euh, di def aar am ko xam te ni ni sa référence la da ngay jël ci moom loolu ñun ñi comprendre ko moom li mu la bëgg a laaj mooy yow kan moo la inspiré ak kan bi ngay dugg ci aar ah ma la loolu euh, yow Thiass bi ngay dugg ci aar say waajur ànd nañu ak yow cas euh, temps bi mënu la may li nga fi bëgg def yëpp non non say waajur ànd nañ ci yow waaw wala déet pour nga dugg ci aar waaw loolu tamit damay am kontaan parce que sama yaay sama yaay sama ku baax la sama yaay dama man Abba dama bëgg sama yaay de. man sama yaay bonul de. non tamit Abba man dama bëgg sama yaay. parce mhm. que euh, maa ngi koy fàttaliku bi may dugg ci aar boobu moom mi ngi jaay mburu mooy mburu bi ñu foroote euh, kii bi. cas ma ne ko yaay euh, bëgg naa dem def théâtre mais boobu. sama yaay ak ni mu doon waxee ak man te boobu maa ngi ci jàngum aar. Thiès baal ma euh, baal ma loolu ma la laaj noonu nga baal ma mais Thiès bi nga duggee ci théâtre ak tey am nga ci lu la neex ak lu la metti nga wax ñu lan moo la ci neex vite fait ak lu la ci metti vite fait ñu avancé parce que ci temps la ñuy animé quand même. voilà kon maa ngi euh, li ma ci neex bari na. Mhm. <laughs> parce que boo gisee li ma aba ah man bu dee mën nga jox benn rek lu la ci neex benn ak lu la ci metti. lu ma ci metti benn. Mhm. waaw bëri woon na mais dama koy tënk comme benn nga bëgg ma wax ko ci ndax man. <laughs> <laughs> lii la non invité di ma def nii. yow mii <laughs> waa Rési yow xam naa ne li ñu am ci temps tuuti la mën ngeen maa may clip. ma waxtaan ak Cas. ñu laajaat ko après émission bi jeex dimbali leen ma rek ndax am naa ñaari xar yoo xam ne dama ko war a may balaa émission bi jeex bu ngeen ma mayee clip ma waxtaan ak Cas mu xam ni ñun temps la ñu liggéeyee. Mm. après ñu ñëw ñu yeggali dimbali leen ma rek ngeen may ma mm. clip. voilà am ma rek. amul benn problème merci. clip merci clip alors gars yi. doo puub baa doo puub lii baa jàmm la yuuxu da nga naan ee aa oo ayca man xaw ma nan laa mën a taxawee fii di énervé wu ñu nekk ci Facebook bi ñoom ñu ne ñu ngi kontaane Thiès euh, bu baax a baax a baax donc dinaa jël léegi kenn ku nekk ci ligne bi euh, woote leen maa ngi ñëw jël léegi kenn ki may may xar ak keneen ki nga xam ni moom lay may xar ku dugg su ma la jëlee dama lay may xar woote leen woote leen le maximum donc euh, fi ñu toll nii yow tey ji lan mooy sa ay projet ci aar bi nga xam ne moom la ñu nekk Thiès deux minutes la ñu am ah pour mën a may nit xar mm. ñut ñëpp wax suñu mot de la fin mm. nga tontu tontu bi lan mooy sa ay projet ci aar ok Aba li ma la waxoon rek gën naa kontaan ci li nga may laajaat. say projet ci aar. waaw waaw mooy ci da lii mooy samay projet ci aar. waaw hmm. sa sax wax ko ci. wax naa ko wax naa sama mbégte. kon maanaam projet yi nga xamante ni moom la am. parce que ma sa yaay na la nga dugg ci. waaw waaw sama yaay bàyyi na parce que moom maire bu baax la. romb nañ ko xam nañ loolu yooyu yëpp romb nañ waaw is borom teranga prestige. loolu du pour nga ñëwaat ci de. pour ah, ma avancer ngeen voilà léegi. mooy kii ma fu ma projet fi ma toll waaw waaw sama projet yi léegi waaw maa ngi ci projet yi parce que maa ngi def ay téléfilm yoo xam te ni dama ko bëgg a jàllal à travers l'Europe travers l'Espagne ah pour que sama gars yi ñi nga xamante ne ñoo may suivre parce que dafa am film yoo xamante ne il faut mu jóge fii. bu ñu wax film yi de wax ñu projet yi kon lool la. léegi am naa ay projet parce que war naa def ay affaires yoo xamante ni dama koy liggéey ak ay boy yu nekk Thiès. Mm-hmm. d' abord am na ay xale yoo xamante ni ñoom tamit dañuy def aar nekk côté Mbombay Kër Jëmb ñooñu dama ciy liggéey ak ñoom euh, yooyu projet yëpp maa ko tënk mais xam na bu ma dellu siwaatee parce que ak tabaski bi. dafa maa dellu siwaat waxal say projet doo ñëwaat de waxal say projet. non yow sa tey jii dañu gis ci say projet daf ci bokk ngay defar ay t-shirt. ay marque di ko jaay loolu t-shirt loolu la. waaw t yi nag xam nga damay bëgg ci événement bu ñu jub rek ma defar ay t am boo gisee lii ku ko xool xam ni lan la naa war nañ koo nand waaw lii daal war nañ ko mën a xool lii doomadaa la ah, waaw xam nga nawet bi ku ne xam ne ni gémmiñ ni day lewet boo defaree dooma doomadaa bu ko defee dafay ànd rim mu nawet parce que doomu daa ko ne xam na ni boo ci pàccalee li ngom ci gàttal mën ngaa lekk lépp ndax ñànkatan kese bi soignement la mais ñeex mi nga xamante ni mooy tegu ci kaw mm. loolu dafay euh, tegal euh, tamaate yooyu di ci wàcc nécessaire bi il faut li ngom ji wàcc ko mm. souvent boo tiimee ñeexu doomu daa ba def ci li ngom da ngay gis mu ataaya loolu mooy bàyyi nga gis diw gi rogalaat wàcc mm-hmm. pour que boo yoree kudd da koy sentir mm. boo yoree loxoy da nga koy a sentir mm-hmm. moo waral ma génn ci euh, nest ñu ngi ci été wala waa été bi daal di laal waaw non. d'accord loolu fii moom Sénégal. Euh, Sénégal li may dugg fi est-ce que man Thiass fi ñu toll nii mën def loo neex te xam ne yow tey nga fi géej bu soobee yàlla est-ce que mën naa jël ci nekk ligne bi. waaw waaw mais mën mën nga ko a continuer waale parce que li ma leen bëgg a tegal li nga xamante ni ah, stratégie bi may doxee pour sama projet yi dafa am yoo xamante ni dañ ma koy déclarer. loolu dina xaw a métti. <laughs> yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax. noo tudd ak fan nga ñuy woowee. fii laa leen di woowee Louga. yaa ngi Louga. Katagay madame Sène. yaa ngi Louga. maa ngi Louga waa Sànc ba Sud. waa yow tey jii bu ma la bëggoon a may xar euh, fu muy jaar. ah da da koy da koy teg si oto rek tegtal ma ne ma fii lay lay jaar ba egsi rek. Mm-hmm. maa ngi Sànc ba Sud en face chambre de métier. ah. waaw. xam nga doyen. Lougaloo doyen waa xam naa ko ndax sama sama sama lay sëyër waaye yow ndax du ma la mujjee booleeg yow kii monsieur le ministre am Moustapha Diop waaw mun naa nekk mun naa nekk léegi yow wàccal ci suuf may naa la xar xaw ma nag nooy def ba jot ci waaye may naa la xar yow mi dëkk Louga noo tudd noo tudd noo ay waay ki dëkk Louga mbaa defa doon leb crédit foofu day taw de. mais daal mais daal may naa la xar yow mii bu dee euh, yaa ngi ci suuf. bu yeboo nga xam euh, may naa ko xar. bu dee am na kenn ku ne ci ligne bi nañ ma ko jox euh, cas bul waxaat tant que waxuñu la nga waxaat. amul benn problème amul benn salaamaaleykum. ah kooku dafa daw de kooku daa dem de. kooku est-ce que mën naa koo may parce que mu waa ci suuf de bu dee am na keneen ku ne ci ligne bi rek nañ ma ko jox nañ ma jox keneen ku ne ci ligne bi avant ñuy tëj tas sa mot de fin mooy lan waaw Aba ginnaaw bi ma sante yàlla julli ci yonent bi sant sama ñaari waajur di mm. kontaane Talla Sylla borom euh, Thiès kooku mooy maire de Thiès mu ngi ma jox ñaari njaganjaay bi muy ñëw pour la la mot de la fin ay njaga njaay nag quoi parce que yi am na yéene jox ma ñaari njaga ah, mm-hmm. léegi andi nañ ko oto yaa ngi fii ci bunt bi ah, moom intention am la loolu mooy yéeneem bu amee nit ak bu amul nit yëpp moom waaw waaw parce que dafa amoon yéene may ko léegi kenn mënu cee yéeg oto ñoom daw nañu noonu bu may dellu tamit ñu demaan noonu daw hmm. waaw kon ko di di ci kontaan di leen kontaane si ngom di jaajëfal Aba parce que maa ngi kontaan ci li ngeen di def dèjà artiste la mais maa ngi gis lu rafet li ngeen di def ci artistes yi yàlla na leen yàlla taxaw defal leen jàmm di jaajëfal sama ménagère Sumbulu ki nga xamante ni moom bàyyiwuma benn yoon moom waaw mbàcc li moom yow la la may moom moo njëkk a yóbbu jas foo yu Sumbulu moom non waxuma bi ne Sénégal de. bi ne fan. tàggool tàggool. ah d'accord non waxaat de. Eh. ayca ayca Paco Dieng l'italiano. <laughs> mu njëkk yóbbu jës ñi lay siyaar ñaareel xaritu jëkkëram Thiam may sa déggan Marème Ngone Joga maay Penda Thiam Salimata Koulibaly ñaareel xaritu jëkkëram borom immobilier te Gueule Tapée borom immobilier te Ouest Foire waaye suñu mag ju baax ji jaay jaata Ndiaye Koddu Ndiaye Ousmane Tirera ak Malick borom MMN Events Ousmane Tirera borom Italie boobu Italia yéen ñëpp yéen ñoom Cheikh Ndiaye leader ñu ngi leen di bëggee di leen kontaanee di leen tàggu di leen wax ne man maa ngi nii ba tey amaguma xar te ñetti xar war na ma kon ku ma ci mën a dimbalee benn rek waaw ay <laughs> jërë ngeen jëf comme tous les mercredis ni ngeen ko xamee li nga xam ni mooy seetu no stress ak si ngoom ak Aba tey ñu amoon cas euh, gis ngeen li fi xew yëpp cas wax ko fi man maa ngi leen di baal wax baal leen maax bu baax a baax ki dëkk Louga te woote woon may naa la xar mi dinañ la woo léegi wax la nooy def ba mën koo jot di kontaan ci sama équipe bi nga àndaloon euh, ñëpp ñëpp ñëpp ah Fatima ak l'homme ci réalisation ba foofu ca kaw ñoom tonton Kamu Seck ñëpp ci waaye Xaadim sama caméraman kenn du moom waa SSP yi tarkalla lu ngeen di waaj a gis ci tabaski bi muy lu rafet ci ay plateau sant leen ko gërëmee ko techniciens yi nga xam ne ñoo nekk SSP ñu leen di bu baax ci son tonton am ñu ngi koy béggee bu baax ak équipe bi nga xam moom la ñu àndaloon yëpp ku lim juum tey ki nga xam ni moom mooy sama apprenti bi mujjul dugg mhm. leen ni tarkalla man sama apprenti ko bu baax a baax a baax jërë ngeen jëf. joxe dox daje ni leen kaaro la fàtte wax ne mook Adja Xaar Mbay ma jaaga ñoo bokkandoo benn yoon. kaaro kaar njaay gaynde waaw lamba bu ca góor nekkul jigéen a koy kamu sek كم